Sonko ku bëgg wax Sonko doo wax Sonko nga ne ko xoo da nga koy saaga da nga si kawam pour lan et eh, fi mu ne moom créé na boppam benn <laughs> benn problème boo xam ne moom sax comprendre lu muy def est-ce que xam nga ne Barthélemy Dias bu naree campagne ci biir réew mi fu mu romb Sonko Sonko lañ koy wax ba keroog campagne bi jeex. waaw ah. ah, parce que moom moo créé fi mu ne situation boobu mooy boo ko fas xasee ba wan nit ñi ne man boo leen ma yuuxawee Sonko damay énervé mooy yow wan a yuuxawee mooy Sonko Sonko fu mu génnati ci biir réew mi gis naa bay naa taxal na ko ay drapeau mhm. boo jàkkaarloo moom da ngay jàkkaarloo drapeau taxal ko ay drapeau sa sa koñ defal ko ci ay Sonko donc fi yow finalement moom Sonko ci dalaa nar a topp mais man dama gëm ne cette coalition là vraiment da nga ciy gis yoo xam daf lay jaaxal est que xam nga Bassirou Diomaye Faye dama gis benn vidéo bu yàgg muy wax am na ku ñu jàppoon moom je pense euh, c'était Birame Souleye xamatuma kan la seen biir ñu taxaw ci buntu commissariat mu ne lii Birame Souleye wax ñu ñëpp ñoo ko wax est-ce que ñoom ñi nekk ci biir coalition sàmm sa kàddu. Hmm. ils vont faire la même chose que ce que Bougane a fait. woolu Thierno Bocoum ci ruq nga ne ko ndax Bougane lim def sañ nga kaa def woolu Pape Djibril Fall ci ruq nga ne ko ndax Bougane lim def sañ nga kaa def wala Anta Babacar wala keneen ak keneen. ils vont pas le faire dafa def dafa nekk di def boppam benn nagu sarax mooy ñii mu àndal nii ils vont pas prendre ces risques là ils vont pas aller en prison. Ah. coow lee bëri duñ ko def. duñ dem duñ dem duñu dem prison duñ def risque bu leen fay dugal. dinañ jouer le nag dinañ def ay affaire mais moom moo ñëw ndeysaan en quelque bëgg a nekk benn ngaaka ci ci biir team bi quoi. loolu moom moo koy mujj def benn nagu sarax parce que yow risques yi nga jël gaay yi duñ ko jël Barthélémy Dias bu fekkee ne moom nga àndal xëy na nga jàpp ne tu es dans une grande coalition wala yaakaar nga ne ñii ma àndal nii su ma ànd ak ñoom bu ma dee ba nekk ci ay torof torof dinañ taxaw xeexal ma. mais sëñ bi Barthélémy Dias li mu séq ak Ousmane Sonko séq ak moom bi séq googu ak fi mu jaar ak Ousmane Sonko jaaroo fa ak moom. Hmm. parfois itam nit da ngay yeewu un ko quoi. am na solo de Barthélémy Dias dafa ànd ak Ousmane Sonko li mu seq ak Ousmane Sonko yow mais yow bu ko ànd ak euh, Barthélémy Dias xuloo dañ fi reyante ba ñu woo leen di leen juboo si biir kër di leen jubóole si biir kër. Ousmane waroon def sax. jeex na. waaw ah. léegi kooku tey nga gis ñoom ñaar niñ meloon doomu nday doomu nday doomu nday doomu nday fu ne ngeen jàpp mais ah, Ousmane Sonko bis bi ma jàpp ne maanaam tolof tolofu Ousmane boo ko doon natt bis bi ma jàppee ne moom moo gën a diis ci li dal ci kawam muy bis bi nga xam ne dañoo teg une condamnation de deux ans ci kawam. Hmm. ñëpp ne eh waa ji c'est fini. waay maanaam ñi ko ñi ko su ma ko mënee waxee noonu ñi ko bañ sax bis boobu mais ils se sont dit ndeysaan kii li ñu ko teg metti na. mais bu fii lañ toog Barthélémy Dias ñu koy seetaan en direct muy chargé ci kaw Ousmane Sonko. mais bu ndiwoo diwlin bi wala. waaw ah, bi mu ndiwoo diwlin waaw ñoom ñoo ko dañuy gatsa gatsa nañ ko assumer. maanaam di réjouir ci koo xamante ne yaa moom fi ngeen jaar mais yow est que nit ñi ñu ngi bàyyi xel est-ce que Bougane moom bu toogee est-ce que Bougane gis na risques yi Ousmane Sonko jël yépp pour Barthélémy Diaz waxuma ay forcé pour que bàyyi maanaam sa parti forcé ku bokk ci parti wu jàmm pour mu nekk candidat à Dakar mais Barthélémy Diaz buñ ko musaana convoqué ci affaire Ndiaga Diouf bii hmm. Ousmane Sonko day jóge këram dem kër Barthélémy Diaz ànd ak Barthélémy Diaz si biir otom bu nga ko tribunal ba yenn ci commissariat ngeen di ànd ñuy tirer ay projectiles jël seen seen seen seen oto loolu ngeen dundaloo ko kooku mu dundaloo loolu loolu kooku bis muy nekk si tolof tolof dafa taxaw di ko chargé yow tu prends le risque nga ne yow da nga ànd ak kooku pour da ngay dem xeex ji di compter ci cette coalition là bi nga xam ne nii amul kenn ku ci nawloo sa morom. Hmm. dañuy naxante nii def semblant ku ci nekk nii mais yow Bougane ku la wax ni Bougane ak Pape Djibril Fall Pape Djibril Fall nawloo na Bougane di nga ko gëm ku la wax Thierno Bocoum nawloo na Bougane di nga ko gëm. donc dañoo nekk ci benn context boo xamante ne nii xëy na contexte électoral moom moo leen poussé à ce que ñu dem dans cette coalition là mais ak lu mën a am nañu fexe tënku ci yoon et puis euh, nga xam li yoon li nga war a def ak li nga war a def et malheureusement tey jii moom moo nar a subir les pots cassés ñi ci des mën nañ simb mën nañ théâtre mais li nga xam ne moom mooy conséquences yi moom moo koy subir hmm. ngoone ñu nar a wax daan tey ci ngoon moom Barthélémy Dias ah li ñuy wax de <laughs> man nekk ma seen sensibiliser maa xam li ñuy wax. forcément bu jógee Bakel di ñëw. bu ñu demee ñëwaat ah, li ñuy wax mooy waaw revenir un ah, peu ci Anta ak kii Anta ak eh, Thierno Bocoum. Ah. nañu wax seen face to face bi ñoom bi ñu taxawee ci kanamu gendarme yi forcé wuñ barrage de dañoo taxaw yow ñii croiser les bras def nii. amoo leen photo bi nii def ñoom ñaar taxaw jàkkal ak kii bi revenir ci li ma doon wax ne ñoom dafuñu def goo xam dañuy def ay outrage wala nu ñu ko waxee rébellion. waaw. Euh, baat dina wax moom lan moo tax ku wax Sonko mu. <laughs> mu xorom. waaw mu Assane Diouf dafa joxe woon 24 ne Diomaye bu ngeen bàyyiwul Sonko bu ngeen bàyyiwul du moins que euh, Bougane nañ wane seen bopp. Mm. boobu ak léegi mat na plus vingt quatre heures démb ndeysaan maa gis Bassirou Diop naan euh, Bougane dafa révisé woon fële nu ñu koy waxee Cap Manuel ak Sébikotane mujjee gi résultat yi yóbbu ko fële Tamba ak ak Bakel <laughs> donc finalement saagam bi mujjewul dem dañ ko koy mujjee envoyé parce que déjà bi ñu koy génnee dem yaa ngi koy chemise de la liberté bi. waaw mu soloon bi ñu xotti woon moom la. moom la sol ak daan yi ak yëpp. ci ngoon si la xaw a changé sol benn t-shirt koy. apparemment damay tiit nii sax damay rey ku nekk ak ni ngay ni ngay wanewee sa ay kii li ngay yëg sa tiitaange ku nekk ak ni nga koy parfois mën nga ree pour camoufler ah? am ñoo xam bu ñu tiitee dañ man xam ba ma tiitee fii nit wax naa damay toog du mën a def benn kii ba mu xaw a kii ma doog a jóg parfois nga gis ko xam dafa tiit nu mu koy manifester mooy dafay reetaan pour wan nit ñi que tout va bien alors que ne ñépp xam nañ ne nag Pape kaso neexul de waaw loo jàmbaat mm. jàmbaat xam nañ ne kaso neexul. Mm. mais dañu toll ci dëkk boo xam ne faaw ñu defaraat lépp yéen yéen a voté pour ñoom ne da ngeen bëgg jub jubal jubanti wàllum justice ak lépp tey bu ñu bàyyee Bougane nee naa day nekk jurisprudence ku def lu la neex bu ñu waxee nga ne Bougane defoon na ko man tam dama koy def dinga dem fii Thiaroye président di fa nekk ngay dem ne doo jàll nga ne damay jàll parce que bi président nekkee Bakel Bougane dafa waxoon day dem mujjee wuñu ko bàyyi mu forcé barrage ànd ak garde corps nekku nañ dem mm. moo tax ku teg yoon yoon dafa war a teg mm. sa kaw muy buggaan muy man muy yow ak keneen loolu laa ko waxee woon démb léegi nag ñoom dañoo wootee tey waaw ah, du si noonu lañ mën a def lan lañ mën a def leneen opposant dëggantaan bu ñu la jàppee dëkk bi day yëngu woowuñu kenn ne ko taalal dëkk bi wala kii mais opposant dëggantaan yow nga natt sa bopp ba ne yow tu es le chef de l'opposition fu kenn waxee nga génn wax fu keneen jooyee nga génn jooy bu dara amee président dem fa nga ne da nga fay dem ñu jàpp la ba léegi dara xewul nga wax a nattaat sa bopp nag xoolaat moo li sëñ bi wax sànq nañ mbir bu amee sa ay mbokk ñoo ñoom ñi nga bokkal politique ak ñi nga bokkal deret mais nga déglu leen. xoolaat est-ce que nar ñoo anticiper euh, Déthié Fall mi ma njort ni da leen nar a baax. waaw mais Déthié bu demee daa war a dem. ak daje bi mu daje. ma ne Déthié bu demee ci Sonko. dafa ah. war a dem ci Sonko parce que àndoon na ak Sonko. Ah, wax naa la fii ne gis nga temps wu opposant dafa am. Ah. période bii képp ku mun a dem ànd ak ñoom Sonko nga ànd ak ñoom ñu liggéey ba nga xam ne nag may nga leen ba ñu xam ne ñii tey nañu lépp am nañu majorité assemblée nationale ot cour de justice ñëwaat na te liggéeyuñu nga génn opposé wu boo toogee sénégalais boo waxee kenn dañ lay dégg léegi bokkam ci sàmm ànd sàmm kàddu yi àndoon ak ñoom ba defar list moom fu ñu koy def ñaata di ñoo fi ànd ak ñu defar liste ba pare jékki-jékki bàyyi ko fa une première fois kon da boo demee ba toog gisoo fa la nga fa bëggoon gis mais yow keroog bi ñuy def seen conférence de presse fii nii gis nga fa déccee oui mais bi bi ñuy finaliser gisoon nañu. waaw d' accord dinaa ñëw bi ñuy finaliser. yow pour yow li mooy opposant surtout seen. yaa ngi fàttaliku seen xaaral seen photo bi dina jox meen ko. photo bi nga xam ñoom ñëpp ci bi ñu bi nga xamante ne. finaliser woon nañu <laughs> finaliser man ni ko waxee comprendre naa ko. du ma la corriger ne. <laughs> seen photo bi. seen ñoom ñëpp. ah Ndeye Dieng Thierno.